dalinya sawah di depan nanti jam gue diwacong ngacung gue dihlenyu cecep gue di dalinya namah lamanul waktu ya kulak mungkin dah belum tahu manul, makai mata bayi cumrewo gue dihlenyu cecep voilà mon auditeur, je banlieue FM nous si Pikine 98.1. ñu qui ak si euh, euh, junior euh, ak Lay si supervision qui di Daouda dalal kenn si candidat yi nga xamni ñoo jongante ñaar ak ñetti ci janvier ñaari euh, muy Mayoro candidats di candidat coalition Wallou Sénégal Mayoro nuyu naa la. maa lay fay di nuyu bu baax Je euh, euh, auditrice ak auditeur ou Banlieue FM di radio boo xam ne bi fii ci Pikine la nekk di fi émettre mais muy radio waa Ndar doomu ndar war donc maa lay nuyu di nuyu sama doyen radio. Guissé di ko féliciter également ci initiative bi mu taxawal fii nga xam ñun ñëpp la mm-hmm. mayor ku la xam-xam Karim wad foofu lay tambale. ani Karim wad mi ngi Qatar. mi ngi Qatar. ñaata at ngi nii mu nekk bitim réew. waaw euh, huit ans Karim wad dëggul këram Dakar. lu ko waral. Macky Sall moo falu jàpp ne dafa war a néewal doole waa kër Ablaye Wade. Hmm. Mood lay. tan 25 personnes ne daf leen di top bolé ci Karim wad ci Karim wad kessé lañu ñu woo moom la ñu topp moom ay milliers ay milliers et des milliers de milliards ba sénégalais yépp seen bop yi ak seen nopi fat fàtt au finish biñu démé ba ci biir liñ doon wax yépp amul amul benn preuve wala benn dërëm boo xam ne génnee nañ ko ne lii Karim Wade moo ko moom. Hmm. ñu mujjee sax dem ba kër bi nekk Point E. ñu teg ci loxo boo déggee man la huit ans ngi euh, daanaka nekkul Sénégal parce que nekk na Sénégal trois ans et demi yoo xam ne ci kaso la nekk. Mm. ci bi mu génnee kaso itam demul këram Macky sàll ak ngàngooram ak ay pexeem ci xam ngeen ne nguur dafa am doole fexe na ba génnee ko réew mi exilé ko boobaak tey mu nekk bitim réew. moo tax boo ne ma anamu xam nañ ne mi ngi Qatar waaye xam nañu également fan la ñu jaar ba mu dem Qatar du woon yéeneem du woon bëgg-bëggam waaye loo xam ne lii dañ ko ko imposer la mu nekk en exil. Mm-hmm. boobaak léegi nag lu bari xew na fi li ma mën a wax rek ca xam ko mooy incha allah mi ngi waajal ñëw ca le moment opportun daañu ko gis Sénégal. mi ngi waaj a ñëw donc euh, yàggatul xëy na 2024 dina yegg ci Sénégal. wax nga ni non avant 2024 quand même. wax nga ni parce qu'il est candidat en 2024.

ab tribunal bu bon. boo xam ne président Abdou Diouf moo ko créé woon waaye ba mu ko créé it da ko sànniwaat parce que xam ne ne tribunal bu bon la président waat Wade nekk fi fukki at ak ñaar taxul moom itam mu utiliser cour boobu kon Macky bu ko jëlee di ko utiliser pour réglement de compte pour acharnement pour chasse au sorcières contre la famille Wade fam contre la famille libérale bi nga xam ne lu mu am tey ñoom la lu mu xam tey ñoom fu mu àgg tey ñoom la loolu dafa doon loo xam ne Sénégal mosu ko xam ci jamonoy Senghor Sénégal Sénégal mosu ko xam ci jamonoy Abdou Diouf Sénégal mosu ko xam ci jamonoy Ablaye Wade yooye fayontoo yooyu ak topp nit di ko ëpp doole di ko ko jaay mooy law ba heure bii jafe-jafe yi nga gis ci réew mi yëpp loolu moo ko indi. ndax réew bu amul in bu amul justice. Mhm. am injustice réew ma pour mu dem kanam dafay jafe. kon di kon ñu xam ne. àtte mhm. euh, biñ ko àtte jaarul yoon. dañ ko ëpp doole jiiñ ko lu amul ca ba tey wane wuñu preuve lu koy firndeel mooy lu ëpp fukki atte fukki procès la Karim dem ak ñoom bitim réew muy Bordeaux muy euh, cour de justice de la cdao muy euh, le tribunal de Paris ak feneen ak feneen ba ci Nations Unies ba ci groupe de travail des Nations Unies ba ci euh, comment on l'appelle groupe de travail bi nga xam ne moo yore les droits de l'homme bu Nations Unies foofu yëpp ba mu fa demee daf leen daan ba ñooñu ne ko nañ ko wat atté bi baxul nañ ko ndamp parce que dañ ko togn nañ ko defal dampay ci rétablir ko ci ay droit mais lolu ñañ ko atté dafa don ay kat yu yo yoo far far yi farfarloowuñu ci kenn du len sante li def dañuy def sen aqulay taala yeen jamono joju ñu tumal tumal waji waji, gis na ni sen yëngatu ak sen taxaway dafa des lu bare li koy firndeel moom pasi weer yi passé amna ben kilifa bu mag ci ñu tuumaal ko ngirum mbirum suuf siif bi ñu ko tuumaalee Sénégal yëpp dañu jóg taxaw ni du fi am lu tax jamono jooju yéen jógu leen xeex ngir lii dal ko. waaw xam nga da nga kilifa bu ñu bu ñu jiiñ mbiru siif. Hmm. <clears throat> ñu woo ko pour mu wuy ji mu woo sénégalais ñu génn waaye dangay wax ne itam ba sénégalais yi génnee ay bakkan yu bari dañ cee daanu fukki nit ak ñett faatu nañ ci ci loo xam ne li affaire privée la. amaana am na nu ñu ko doon gérer du àgg foofu ba bakkan yi ci rot di ci bak di ci rot benn bakkan rek dafa foor Karim Wade atte nañ ko atte bi def def na ñaari at ñu koy topp tëj nañ ko ñetti at ak lu topp mais benn bakkan watu parce que dañu ne ñun dañu nekk ci état de droit dañu gëm état de droit ñun parti d'état lañu PDS dafa gérer réew mi fukki at ak ñaar hmm. kon dafa war a delloo njukkal waa réew mi dafa war a delloo njukkal justice dafa war a delloo njukkal administration dontale justice doxalul ak ñun justice dontale am na ay fay ak ay manquement mais ñu dëggal suñu bopp dem wuy ji parce que xam nañ li ñuy jiiñ dara amu ci ànd ak ñoom procès au lieu ko ci tribunal yu normal yi au lieu ñu yóbbu ko ci tribunal yi nga xam ne euh, tribunal yu ñu xam la mm-hmm. mais ñu yóbbu ko ci tribunal d'exception boo xam ne bi amatul sax ci réew yi nga xam ne amul démocratie pour àtte ko fa nga xam ne àtte ba Euh, dañoo dañuy euh, renverser ce qu'on appelle euh, la charge de la preuve ki la taqal au lieu preuve yow indi preuve xam nga ne loolu jalgati boobu démocratie justice na itam la prouvé wuñ ko ba pare ca lañ la prouvé wu ko ñu la ci fi am ki ci doonoon victime bu mag bi moo doon Karim Wade ñun booba li ñu mënoon mooy ànd ak moom ci tribunal ci gendarmerie à chaque fois bu ñu ko mos a convoqué muy wuy ji bu ñu fa waree fanaan fanaan nañ fa gunge ko di yaakaar yoon. Hmm. ànd ak moom ci tribunal bi bu ñu fa waree fanaan fanaan fa gunge ko di yaakaar yoon ànd ak moom ci procès bi yëpp ba ñu xëy tëj ko ba yoon tas suñu yaakaar ñu xam ne waaye bi muy tas suñu yaakaar aussi tas na yaakaaru Sénégal yëpp parce que yaakaaroon nañu ne. nit boo koy tuumaal da ngay joxe preuve. bala may tëj euh, chapitre Karim Wade dina la laaj Mayoro lay Ablaye Wade. Ablaye Wade mi ngi Versailles bu yàggul la fa dem ci ay weer yu néew ñaari at ci ginnaaw mi ngi woon Dakar ndax hmm. Dakar la dëkk. waaw tey jotul yéen ngeen noppal góor gi. góor gi mooy noppal boppam moom moo xam yaramam moo xam mën-mënam moo xam lim mën ak lim mënul te fii ba fi may wax yow yàlla nga koy may wér yàlla na yokk yàlla nga koy may tal. yàlla na yokk yàlla nga may xelam bëri na lu ñuy doxal ci parti bi moom mi ko jiitee nekk suñ secteur général national ba tey moom moo koy coordonné ci it ñoom lañ ci moom lañ ciy laaj xalaat ci xalaatam ba tey mi ngi ñuy doy bi ñu dégloo xalaatam ba tey juumaguñu donc président ab Ablaye Wade ak fi mu jaar ci Sénégal ak expérience bi ko yàlla may duñ ko wàcc dañu soxla li mu xam dañu soxla sagesse am dañu soxla générosité am dañu soxla expérience am ak expertise am. Hmm. dañu soxla aussi xalaatam ci lépp loo xam ne dañ koy def. yow xalaatam ak ndogalam si nga nekkee euh, defe naa coordonnateur. Euh, lu euh, lu wér nga wax lu wér nga wax lu wér nga wax ginnaaw bi Ahmed Fall Braya demee. ci la ma président Ablaye Wade jël fal ma def ma coordonnateur départemental lu Saint-Louis. Ahmed Fall dafa dem wala yow yaa ko mu génn ñuy coordonné ñuy coordonné Pal, Gandon ak Ndar commune Saint-Louis. yaa ko pousse. kon de amna doole. bu ma mënee pousse Ahmed Fall mu dem moom am naa. doole mais lan moo ko génnee PDS. ndax moom taxaw na si diggu Ndar ni moom moom mooy PDS. waaw bu ma neexee taxaw ne man maay APR mais du tax ma nekk APR. bu ma neexee ne man maa yilif Mansour Faye loolu déclaration la mais li am solo mooy les faits. lan nga junj Abdoulaye Wade. lan nga junj nga xam ne mooy secrétaire général national PDS moo bind bataaxal. Hmm. wax ne sunu frère boobu di sunu mag. di suñu kilifa Ahmed Fall Braya nekkatul PDS depuis 2019 et que man la fi teg bind na kayit yóbbu ko ci autorités yi pour wane ne maa fi ne ca ba ma fi nekkee léegi it maay woote maay coordonné parti bi lu fi xew pour parti bi maa koy def ànd ko ñi nga xam ne ñoom ñoo fi toogal président Abdoulaye Wade muy militants yi ak militantes yi ak mouvement de soutien ak sympathisants yi. ñu ñu gore. yoo xam ne ñii. fi ñu Abdoulaye Wade teg foofu la ñu toog ñun seetiwuñu kenn nammuñu kenn wutiwuñu kenn daara. yaa ngi tiitaluñu yaa ngi junj de. daara xub nga looy junj de da nga am looy junj daara feesul sunu bët ñun Ablaye Wade ak gis-gisam doy nañu sëkk école la euh, mode de vie la euh, ba tax na lépp lu ñuy wër di ko seet soxla ko gis nañ ko ci moom moo tax. Mm. soxlawuñu leneen feneen. moom moo la fi teg Ablaye Wade wala base bi moo la fi teg ndax tey jii. ku fi ca Ousmane Ngom ba léegi. Ablaye Wade mooy dese Ablaye Wade fi tegoon usmaan Ngom. moo fi tegoon Ousmane Masseck Ndiaye moo fi tegoon Ahmed Fall Braya moo fi teg tey Mayoro Faye. sa digganteeg Ahmed Fall Braya ñagas na wala rafet na. jàpp naa ne rafet na ndax mosul am lu ñaaw sama digganteeg moom mosuñu ko waxante mosuñu ko defante. dañu àndoon rek. mais yaa ko àndatuñu yaa ko wutu. ah am na lu mu signifié. Macky euh, Abdou Diouf ku ko wutu du Ablaye Wade. waaw seen diggante dafa raxas. kooku ay ay élection la la waaw kayit kaka faloon moo ko folli fal keneen rek. dafa mel ne premier ministre. Macky Sall ku koy fal du Macky Sall mm-hmm. du xeyna na ne bëggatul sax far premier ministre mm-hmm. raxas ko bam set mm-hmm. deugal bopam bam dewe ba xamne ne mënul dem mu ne waat dafay defaat premier ministre est ce que dafa am kuy dem ne ko doko fi defé Abdoulaye Wad le parti bi jox les textes du parti le règlement intérieur ak les statuts ñoko may prérogative di nommer parce que ñun ñëpp ay délégataires de pouvoir am lañu mom moy secrétaire général national mom moy yilif parti bi moko jité kon ñun ci baatam la ñuy waxe ci turam la ñuy waxe ca bis bu ñu noppee waxe ci turam ak baatam di jéem a waxe sunu tur ak sunu baat militant de base yi responsable yi ak militants yi ak sympathisants yi dañ ñuy bàyyi. kon moom moo dogal ñi fi bàyyi woon ñëpp. di def mhm. seen yëf bopp dañ leen faa bàyyi. Mhm. kon moom moo dogal yow nga nga jiite day ji. ci kàttanu yàlla. moom moo dogal nga nekk euh, candidat si élection yi. waaw euh, bëggoon na ko mais candidature yi dañu waxtaan ak sunu yeneen parti ak mouvement yi nekk ci la grande coalition wàllu Sénégal PDS kese newu fa

kooku kooku de moo ki ko toogal fii si Ndar kan la. ku tudd Ngañ Fay. kooku est-ce que xam nañ ko. nit ñi xam nañ ko xëy na yow yaa ko xamul mais nit ñi xam nañ ko. ah man ab so parce que xibaar laa de. non xamoo <laughs> xam naa xamoo ñëpp xam naa lu bari si dëkk bi de. ñi ko fi euh, ñi bokk suñu coalition également bokk na ci waa coalition jot na ñu mel ne Cheikh Koulibaly ñu mel ne ñoom euh, Moussa Thiam bu Pikine ñooñu ay leader lañu ci la coalition jot na parce que c'est une grande coalition bu ñëw ci sunu biir coalition. ak ñan am ci aussi waa taxaw tem waa LD Debout LD Debout mooy euh, Pape Sarr Pape Sarr moo ko jiite mooy seen secrétaire général national mais am na ci itam le doyen Moustapha Dien moom moo fi nekkal taxaw tem taxaw tem moom mooy euh, professeur Ibrahima Fall. ak itam nag boo duggee ci gox goxani dafa bëri ay association ma ko ku may tudal ñoon kenn xamu leen de d' accord ba tey waaw xam man dama ci rek non mais li bala tontu man ne yow xamulo ko mais bul ne kenn xamu ah man de xawma de voilà da xam naa ñu bari ñu bari ci dëkk bi ñu bari ci dëkk bi xam nu ba tay man na ne mais du changer lu bari li am solo moy ah yaakar nga déedéet li am solo xam nga lan la ñoñu ay doomu ndar lañu yo xam ñañu dëkkal ak ñañuy séqal hmm. naw nañ leen ci seen doxalin ak seen constance dontale sax bu doon sax ñoo xam ne ci benn quartier kese lañ leen xam doy nañu ñun ndax quartier boobu ña ñu fay symboliser ña ñu fay représenter dignement ba ku ñu fa war a weg weg ñu fa ca kenn du ñu fa yab te it bu ñu yëkkati seen kàddu nit ñi danañ xam ne ñii dañoo bëgg dëkk bi moo tax ñu yëkkati seen kàddu. Mm. ku mel ne ki ma la mujj wax léegi aussi muy le doyen Moustapha Dieng bu taxaw temm dëkk Langue de Barbarie di un spécialiste en matière de pêche matière d' environnement. Mm. yaakaar naa kooku kon moom au moins xam nga ko mos nga ko invité. waaw parce que ba Dakar télévision yi nekk Dakar dañ koy invité. waaw non mais foofu si télé rek xam naa ko boo ko xamulee itam sénégalais yi xam nañ ko parce que li am solo tey lu ñu xam la mais <laughs> xam lu am solo lan la liggéey ci bi lan la ñu tekk ci terrain bi ak lan mooy yaakaar gi waa Ndar am ci ñoom hmm. loolu moo ëpp solo te loolu mesuré nañ ko xam nañ ko ñi ngi koy doxee ñi ngi koy waxee ci lépp lu ñu ci war ñi ngi koy jéem lu ñu mën loolu moo am solo mën naa wax ni at yee passé waa Pikine xamoon waa Ndar xamoon nan la bu baax waaye est-ce que yaakaaroon ni am na lu wàññeeku yow. non man nag dama yaakaar dafa am lu yokk ndax diggante. mayor ba nga nekkee ci nguur amoon nga doole. est-ce que tey jii loolu ma nga fa loolu laa la laaj. bi ma nekkee ci nguur aw ma woon doole parti Abdoulaye Wade moo amoon doole président Abdoulaye Wade moo amoon doole man militant laa woon hmm. militant laa woon ba 2006 laay doog a nekk responsable. ca booba dama amoon ay kilifa fii ndax boobu ma Masseck Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm ci yeexe ñu moo fi newoon doon sunu kilifa mat ka sëkk ñu topp ci ginnaawam doon ay responsable hmm. bi mu fi jógee Ahmed Fall Braye lañ fi teg ñu topp ci ginnaawam élection bu musa am municipal comme législative topp nañ ci ginnaaw moom moo doon candidat ñu dëggal ko ànd ak moom ca waruñu ko naxuñu ko def ci lu ñu mën ak lu ñu mënul hmm. ndar gépp seede ko tey nag yàlla dogal lañ leen dénkoon ñu dénk ko may doxal ànd ak ña ñu daan àndal ñoom ak ñi nga xam ne ñi ñu bees lañu di ay nouveaux adhérents dugg ci parti bi ndax dama lay wax ne depuis quelques mois ñi ngi jaay carte fii ci ndar ban parti nga fi dégg muy jaay carte parti bu dëggal boppam APR ñemewul jaay carte parti socialiste ñemewul jaay carte yeneen parti yi nga fi dégg ñemewuñ jaay carte yéen ngi jaay carte ñi ngi jaay carte bu wër ay junni junni junni carte dugg nañ ci biir ndar wa PDS ca loolu déggoo ko ci benn xëy na defuñu tentamar ca déggoo ko ci benn parti bu ñemee heure bi di jaay carte xam nga jaay carte yi pour lan pour taxawal suma ay secteur renouveler structure yi ba nga xam ne man en tant que coordinateur structure ñoo may fal bu ma ko matewul ñu fal keneen. mais kooku loolu mooy démocratie. mais kon kay Braya won muy génn. war nañu won jaay war nañu won génne Braya. man bu ma sañoon bu ma sañoon dañuy wax waxu PDS comme que Braya nekatul PDS. ñu ah, bañ ko tooñ léegi fu mu nekk mom mom mo jité gëm sa bop yalla nako yalla may lim bëgg mais ñun tam ñi ngi suñu waru PDS suñu waru grande coalition walu Sénégal di liggéey ci ndigalu Ablaye Wade ci ndigalu suñu yeneen leader yi and ak wa Ndar yi rawatina wa pikin wa langue de barbarie wa jàmm gën wa bango ngalel njolofen lewna au clair fep 33 quartier ñi ngi waxtaan ak ñom ñi ngi bok ak ñom projet de société bo xam ñi ngi koy tabax pour que bu ëllëgee bu ñu jotee maire bi ñu dimbali nit ñi parce que nit ñi sonn nañu dafa nak nguur gi fi ne ñim fi tek muy Mansour fay ak kiko bëgg wut di Mari Sow ñaan ñun xam nañ ne ñoo yem benn la ba ci ñoo ñi ngi wax doomu ndar yi ñu yewu ñu bañ leena nax ndax dañ le dafa mel ne benn nga yor 100 francs mm-hmm. dafa am fils ak tête comme boo ko waxee langage bi terre à terre mooy fils ak tête. Mm-hmm. boo yoree pièce 100 francs wala pièce su juróomi dërëm. Mm-hmm. dafa am fils ak tête fii mooy fils fii mooy tête benn la waaw benn ñoo bokk kilifa. ñoo bokk parti ñoo bokk coalition ca bu ñu gagné ñoo bokk kiñ koy jox mais yow léegi da nga ni moom bu ma wax si Ahmed Fall Braya ndax gëna seen parti waaw lu tax ngay wax si ñeneen ñi nga xam ne da ngay jàkkaarloo non bëgguma ñu yaakaar ne li ngay wax dama bañ ñu yaakaar ñu jël débat bi. sama diggante ak Ahmed Fall Braya def ko débat personnel. non dañ koy romb maa ngi moom amuñu problème ca bu boo ko invité. wax nga ko na ko ne Mayoro nee na yaa ngi moom mosu am problème. sama mm. mag la man rakkam laa. am na droit it wut doomu ndar la comme ñëpp moom mooy xalaat ak di xool nan fan lay jaar ba wut. man tam mm. ma xalaat xool fan lay jaar ba wut. Mm. ku war a am yàlla na ko yàlla jox mais ku yàlla di jox na fekk ne kooku moo gën ci ndar.

ni nga ko waxee ñi ngay wax naan seen xam-xam seen buntu kër la yam mais am na ñoo xam ne seen xam-xam wër na Sénégal am na ñoo xam ne ndar ay doomu ndar lañu seen xam-xam wër na Afrique. te bokk ci yéen ñii wër nañu àdduna. te bokk ci ndax xam xam-xam c'est universel. bu dee xam-xam bu wër. xam xaw ma nag. yor na xamantu mais bu dee xam-xam bu wër sunu équipe am na ñu am xam-xam ci wàllu pêche am na ñu xam am xam-xam ci wàllu culture am na ñu am xam-xam ci wàllu sport am nañu am xam-xam ci wàllu économie am nañu am xam-xam ci wàllu aménagement du territoire am na ñu am xam-xam ci wàllu éducation wàllu njàng am nañu am xam-xam ci yeneeni anam ak yeneen yoo xam ne bu ñu ko doon lim fii duñ fi jóge ci ñooñu ñëpp ku ci ne domaine ba nga nekk am ñu am xam-xam ci wàllu décentralisation ba di ko jàngale loolu yëpp am na ci donc ñun yaakaar nañu am nañu assez de personnes ressources ak ñoo xam ne naka jekk ci développement la mos di yëngu di ay góor ak ay jigéen ñii ay jàngalekat lañu ñii ay éducateurs lañu ñii am nañu xarañte ci yeneen wàll yoo xam ne yi mooy xarale yu bees yi. Hmm. te li ëpp solo mooy volonté politique bi ñoom ñëpp dañu am engagement politique am volonté politique bëgg def abstraction de leur personne au profit de Saint-Louis kenn ku ne nga bëgg bu ëllëgee bu ñu yàlla joxee eh, ñu ñu jiite mairie Ndar. mandat bi 5 ans la mais buñu amé 3 trois ans rek doomu ndari fuñu mëna dëkk muy Pikine muy Diamaguène muy Eau-Claire muy Langue de Barbarie muy sud sud euh, nord fu mu mëna a doon ci ndar nga commencé sentir sa bopp ci maire bi xamné équipe bi fi joggé de ak équipe bi fi nekk tay wuute na. te mhm. lu yomb yalla la mais aussi lu yomb population la bu fekkee né joxanté dañu loxo mettre en place cette équipe libérale bi nga xamné ne de programme am dafa inspiré wu ci vision wu Ablaye Wade ca it bu boba am nañu ay partenaires yu mat au-delà des partenaires de Saint-Louis des partenaires traditionnels connus yi nga des partenaires de ak Saint-Louis ci coopération décentralisée am nañu ñun président Ablaye Wade ak ay relations am nañu président Ablaye Wade ak ay projets am nañu président Ablaye Wade ak en tant que conseiller ak ay conseils. Lolu rek déjà suñu avantage concurrentiel par rapport aux autres parce que ñun ñoo am Ablaye coopération décentralisée ndara mo dufa dara lolu mom war nga ko war nga ko xam non loolu maasur nga kay laaj mo wara def bilan wu coopération décentralisée candidat nga non mais mom mo ci wara def bilan mom lañ ko denkon det dama ni candidat nga yow kay am nga am nga vision pour ëllëg coopération eh, décentralisée effectivement nga dama bëgg mu defal ñu bilan bi ngeen xam il n'a rien rapporté ici à Saint-Louis wax nga légui ni am ngeen ay borom xam-xam ngeen jité dëkk bi ak ño xam ci environnement la seen xam-xam match lolu yëpp am na ci mhm. Mhm. tey jii gis nga ndar ni mu bindoo gis nga ma ndar ni mu bindoo ak euh, rëg-rëg yi fi am liggéey yi fi am bi nu demee ba mandat bi jeex wala mbokk bi nu demee ba màndaa bi féete boor ba nu nekk si leneen du waajal élection dëkk bi soppeeku na xar-xar xar-xar kanamam soppeeku. lu fi soppeeku. yow noo ko gisee. lan moo fi soppeeku. dama lay poser question. non dama la may tontu damay xam lu soppeeku danga ne xar-xaram. fan la soppi ko. ñoo nga ñoo ngay defar nen nu bàyye ñoo ngi dëkk bi. Euh, place Faidherbe. waaw loolu du soppe musiba la loolu musiba la doomu ndar yi seen xol neexul. loolu ko wax naqari na ndax la ñu xamoon muy place Faidherbe bu ñu amee gan mën fa doxanto ak moom boo yoree oto mën ko wër bu la neexee nga wàcc fa bu la neexee nga toog ci jardin bi loolu lañ ñu xañ. loolu du vision. déedéet. loolu yow ndar noo ko tuddee. patrimoine mondial la. de l'UNESCO yow loolu loo ko tuddee. déglu ma dama naa la wax lu ma ko tuddee. ndar du da wërale ay seng rek ak ciment déedéet affaire bi du ciment. ak faire dedet gis-gis la vision culturelle vision architecturale la ndar moomuñu ko ñun kese patrimoine mondial la dañ ko classer patrimoine mondial mu am ay euh, euh, ni ñu koy waxeeti ay kan ay yo xamné mom moy fessel karamu ndar mu am ay symbole ak ay place mythique ay rue yo xamné yi dafa am lu muy fatali ay bâtiment yo xamné dafa am lu muy fatali lu melni palais du gouverneur lu mel ne place Faidherbe lu mel ne le pont Faidherbe ak yeneen po euh, ay quai yu fi am ay quai enrichage ay yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ñu ko doon lim duñ fi jóge ndar dafa am lu mu moom. ah du ñoo koy defar. ndar déedéet deglu ma bàyyi ma rek may ma rek ma àggale danga ma la. aywa bismillah loolu dafa doon lu koy màndargaal da koy taaralaat waaye doo ko soppi du lu nuy soppi du lu nuy sotti bâtiment yi nga gis biir île

daanu nañu parce que nit ña fa doon ñëw mëntuñ fa ñëw amatuñ fa accès waa loolu daaneelul économie bi ci loo xam ne li rek sa teeyu bàkkan nga ko def waxtaanuloo kenn ndar waroo def dara ci waxoo waa IFAN waxoo dara waroo def dara ci wax ci wàllu woowu ci waxoo ak waa IFAN waroo def dara ci wàllu woowu ci waxoo ak sunu historiens yi ak sunu magu dëkk bi sunu notable dëkk bi yi nga xam ne ñoom ñooy les gardiens du temple mu ñu wax la fii kat lii la baaxoo fii lii la baaxoo fii nii lay demee fii nii lay demee loo ca war a yokk lu dul yàq nga yokk ca loo ca war a beesal nga beesal mais ñëw changer xar kanam gi indi leneen loo xam ne béton rek la béton ba mu fay defaat du nous renvoyer à rien du tout parce que ce n'est pas notre histoire ce ne ça nous renvoie à aucun souvenir nous on veut avoir la place Faidherbe intacte niñ ko juddoo woon fekk ko fi sunu maam yi bàyyi ko fi nañ ko dolli taar gën ko dëggal. gën ko defar ba mu gën a méngoo ak jamono. Mm. mais di ko feddini di fa defaat leneen ñun sentiruñu ko en tant que doomu Ndar. tey boo jëloon dëkk bi damay ngay dindiwaat loolu. dama koy delloo na mu meloon na mu meloon daan l'identique ba pare nag defar jardin ba mu baax ba boo doxatee ci biir dëkk bi ba bëgg a toog am foo mën a toog paisiblement oto yi di ko wër nañ ko daan wëri transport bi fluide circulation bi jaar yoon. plan de circulation bi ba a am blocage ñun loolu mooy suñu gis-gis. kon daal boo yéegoon place Sodev da nga koy delluwaat. na mu incha allahu taala. sa wet ga boo wàccee si wàllu ten jigéen da ngay gis place Ablaye Wade ñu tuddee ab Ablaye Wade doon président du Sénégal gis li mu fi def si réew mi ñu tuddee ko place bu mel noonu tey boo yéegoon looy def foofu. waaw euh, xam nga tudde nañ ko Ablaye Wade tudde nañ ko kuñ kuñ kuñ kuñ ko kuñ ko war a tudde ku jar ñu tudde ko mais Ablaye Wade mën nañ ko tudde lu ëpp loolu ci ndar. yow tam fu camion yi di teer. waaw fu ñu di wàccee jën. déedéet man ni nga ko gisee ak ni ma gisee bokkul. mais loolu rafet mais loolu rafetul déedéet li ci am solo d' abord dafa am aspect yu bari li ci am solo mooy d' abord le symbole. Hmm. parce que moo gënoon ñu bañ ko fi tudde benn place. léegi nag lañ fay def loolu responsabilité mairie bi la parce que place boobu mairie bi moom moo ko yore. Hmm. Nous fay def nag ñoom ñoo xam lan lañ fay def lañu fay def mën nañ baax mën na bañ a baax nañ ko améliorer mën nañ ko la fa ça dépend l'essentiel ñun moom buñ ci tollee daañu xool la fa yell parce que foofu dafa war a doon boulevard bu yaatu génn xar marché te jigéen jëm ba jàmm ñu xàll ko xàll raay bi amatul. Hmm. train amatul foofu yëpp nañ ko utiliser pour que les euh, gare bi déjà ñu utiliser ko parce que. ci patrimoine sunu patrimoine la bok man defon dang kay pour dar non do ko toj hmm. man man duma sur fay ah man duma toj dara kan duma toj gar duma toj jak kan mo toj jak duma toj keur dañ koy defalat ba mu rafet hmm. ñu embellir ko bo xolé ba nga xamne nit ñi doomu ndar yi nga xamne dañ dan dugg sahar di dugg train di fa wacc nga xamne dañu nostalgique hmm. di fa mën dem di doxantu fekk fa commerce yu propre touristes euh, les les acteurs culturels occupé ko touristes bu ñëwé mën fa dem loolu yëpp xalaat la rek ca du tee dana dend ak marché bi mais marché bi daañ ko améliorer ba mu méngoo ak jamono parce que nguur gi euh, équipement su fay ba ñu yëg léegi amul benn marché ci marché yu mag yi bu ñu defar du marché Ndar Tut du marché jigéen du marché Pikine marché yi toilette sax yu baax mënuñu ko am ay yoon yu baax mënuñu ko am tey yàlla tere bu fa incendie amul ay bouche d'incendie sax amu fa amu fa également ay yoon yoo xam ne tey ku leen doon walla mën nga fa jaar loolu c'est une ak turam fi mu toll ci àdduna waxuma ci Afrique war na dépasser loolu. te loolu dafa laaj vision il faut nga am vision wu président Ablaye Wade am générosité am xalaatam am ambition gëm sa bopp. loolu moom moo lay may nga mën a liggéey pour doomu ndar yi. gëm sa bopp keneen ak moom wuy ma yaa ngi wax léegi vision ab Ablaye Wade euh, Mayoro dafa mel na programme bi nuy tegal nii en tout cas si taabal bi ma tegal tey lépp si lay Wade la wékku tey boo jëlee ndar sa programme. sama programme vision Ablaye Wade quand même sama programme. mooy Ablaye Wade si mooy Ablaye Wade. non du Ablaye Wade. mais dafa inspiré wul programme dama la ko wax ci njëlbeen. dama ne la suñu programme dafa inspiré wu. ci ci vision Ablaye Wade. Ablaye dafa am vision ci éducation am ko ci santé am ko ci cadre de vie am ko ci emploi am ko ci assainissement am ko ci culture am ko ci sport am ko ci environnement. am ko ci aménagement du territoire et cetera am ko ci pêche am ko ci le secteur informel am ko ci artisanat kon kay ablaye vision ci les domaines de compétences transférés Il y a également d'autres domaines même qui ne sont pas transférés mais ñun dañ ci yëngatu bu ñu joxee mairie parce que euh, on applique ce qu'on appelle la loi de la subsidiarité ce qui mm. n'est pas interdit et autorisé mm. ba tax na doomu ndar yi itam duñu jëlil fenn dara rek entre quatre murs jël ko jox leen ko ne leen programme c'est un programme boo xam c'est en élaboration en cours d'élaboration et que ñing ci waxtaan ak quartier yi gox goxaan association pour que lu qui Pikine ñuy Pikine élaborer parce que ngi ak wa pacte Pikine day dem pacte association la bu nek Pikine pacte Pikine day dem ñoy ay parti Pikine la ñuy taxawal Pikine la ñuy sagoo ñooñu ñu ngi liggéey ak ñoom pour que programme mu ndar bi association ay kuréel yu ndaw pour loolu jëlul dëkk bi de waaw baax na bañu àgg ca mooy li dëkk bi yooxu dana jibe fuñ ko foogul ay waaw may ma ma rek ñëwal mais waaw <laughs> kuréel bu ca kuréelu Pikine nga wax donc ñooñu ñooñu ñoom la ñuy leen ñoom la ñuy mettre en avant par rapport ak lu war a am Pikine ñooñu ciy xalaatal cependant ossature bi ossature programme bi tëgg nañ ko ba pare mi ngeeg ñun am na ci ay poñ yoo xam ni taxawal nañ ko foofu nag contenu bi dañ koy liggéey ak waa gox goxaan yi waa bàngoo la fay am ak lañ fa bëgg mu am ñoom lañuy àndal xalaatandoo ko terminé ko ñi ngi en de laboration waa Jaminaar waa lew Léona Auclair ñoom it la même chose parce que waa Langue de Barbarie Gendar sanc ba ak goxu mbaaj ak kër Ibra Dieye ba hydrobase ñoom it xam nga préoccupation yi du benn. Ah, kon gox bu nekk ak. gox bu nekk ak la muy bëgg. lépp nag la ñuy fisale mu nekk un document boo xam ne bu ñu paree ba valider ko ak les population ñi nga xam ne ñoom la ñu tànn ñuy seen ay experts ba pare dëkk ci base bi lii lañ koy jël nag présenter ko. mais tey boo bëggoon mën nañ la présenter ossature bi mais hmm. contenu bi ñu ngi koy liggéey pareegul parce que bëgguñu ko def entre quatre murs mu mel ne la fi daan am bu yàgg ak bu njëkk nga xam ne da ngay toog rek ñu jékki-jékki indi la benn programme boo xam ne bu ñu koy indee ci carte bi carte bi du xam fan lañ ko élaborer parce que du ci gis boppam. Hmm. pour que nag ñu am une meilleure appropriation des projets et des programmes il faudrait qu'on utilise la méthode participative. Hmm. la une méthode inclusive qui permet à chaque Saint-Louisienne à chaque Saint-Louisien de dire son mot par rapport à notre programme. Hmm. ñun noonu la ñuy doxee. yow xam nga ni poumon économique bu Saint-Louis bu euh, communes bi déjà avant may wax département bi sax dafa lëkku ci tourisme ak pêche wax nga waxu pêche pêche mais si xolé ba ci pêche bi daanaka pêche ban gis pêche bi parce que d'abord il y a un manque notoire de communication avec les acteurs de pêche il y a aussi un jeu qui n'est pas sincère avec les acteurs de pêche c'est-à-dire autorité, yi parfois duñu jox acteurs de pêche les bonnes informations dañ leen di jema manipuler parfois au lieu ñu dem ak ñom dans des projets structurants et puis inscrire dans la durée avec des projets pérennes mais dañuy nuit, di dougal ci yo c'est pour les utiliser le temps des élections Élections législatives mi ngi ñew ñu soxlo Élections am fu jaar ak ñom Élections locale mi ngi ñew ñu soxlo am jaar ak ñu am mais nous leen defal lo xamné ne fay dess am fu jaar ak non la politique politicienne ñëw def benn coup d'éclat way tey indi nañ leen licence wala suba ñu leen daañ leen jaay moteur temps wala gannaaw suba ñun leen may nañ leen ceeb ak dëwliñ parce que sonn ngeen wala ñu indi fa ku mel ne Macron naan leen il vient en sauveur dañ leen di tabaxal seen ay kër yi nangam nangam bu ñëwee ba jàll ci lañ koy gëj a gis parce que bi fi président Macron ak président Macky di ñëw dañ ne woon dañu ñëw pour sauver walla langue de barbarie hmm. bañ fa jaaree ba dem ak léegi seen coono dafa gën a yokk seen kër yi toj na yii géej gee ko toj yii meeri bee toj seen jàkka yeeg seen daara yi toj na ñii ñu ngi leen yóbbu ca bâche yi génne nañ leen dëkk bi gisatuñu ku ñu waxal seen njaboot tas na ña doon jàng jàngatuñu seen wér-gu-yaram ñii faatu nañu ñii wéradi nañu ci amuñu fu ñu fajoo mu mel ne ñooñu dañ leen a exilé mm. alors que dañ leen fekk fa seen cosaan fa seen maam ne woon ak seen ay waajur fi ñu xam den ak géej gi nga xam ne seen activité principale mooy pêche ñu jëlee leen fa sànni leen ci ko euh, euh, ni ñu koy waxeete gott boo xam ne ñoom xamuñu woon loolu. léegi bu la yàlla joxoon dëkk bi noo nooy nooy def ak ñoom. avec nos partenaires ndar dese na tuuti suuf war nañu xool suuf yu gën a jege géej. ñu dëkkal fa doomu hmm. géej gi doomu gée doomu langue de barbarie yi. partenaire parce que non. yow kon Qatar nga jëm on aura beaucoup de partenaires. nga jëm yow kay. bu a wax waa Ndar a ñëw waa waa Ndar foofu waa Qatar ak waa Dubaï ñëwee. ak waa France ak États-Unis ak ak ak ak Allemagne. te nga yem si Qatar ak ñeneen ak ñeneen ak pays yeneen yi nga xam ne dañu fas yéene dimbale sunu sunu sunu bopp ñom dañuy jël waxal ni wa Qatar ñoy ñew wa yow bu la neexee nga yam Qatar man yamuma Qatar <laughs> fepp ci aduna bi fo xamne bu ma fa tege tank wala ñu yónnee fa danañu indil ndimbal ndimbal ndar danañ ko def parce que ndar dafa wara jog ci bu gaawa gaawa gaaw ndar dafa wara daw à très grande vitesse pour dab yenen rew yi nga xamne ño tolo ak mom tour ci aduna bi mais ndar dafa delu ginaaw parce que dañ koy denk ño xamne sentiruñ ko bu ñu tëdd leur leur cœur ne bat pas pour Saint-Louis ils n'ont pas assez de souvenirs pour Saint-Louis euh, a une nostalgie par rapport à Saint-Louis d'hier Ils suñu yenn mag ñi ak li doon incarné ñu ay symbole nous, ça nous fait frissonner Saint-Louis nous fait frissonner pour nous, pour ñu liguer Saint-Louis nous fàtte suñu bopp. Hmm. pour nous, ñu gisee doomu Ndar dañ koy bëgg des même si nous bokkul des moom même bu ñu bokk ak moom gis-gis mais nag Saint-Louis dafa toll ci situation boo xam ne doomu ndaram doomu doo ay doomam dañu war a jóg dëggal seen bopp jëlaat seen dëkk en mai liggéeyaat ko soowee nit ñi mag ñi ak xale yi dañoo sonn. Mm. rawatina jigéen ñi nga xam ne ñoo yor kër yi. ci kenn taxuwu leen ku ci ne secteur ba nga ne dañ la koy fitnaal mais indiwul la ñu fa saafara xoolal tey période inondation mm. Saint-Louis ni muy méttee kenn ku ne tal nga sa bopp talatoo jàngu xale yi. talato lek talato nan amato fo toog. Mm. c'est très très très très compliqué. de sorte que yooyu yep, ñàkk am maire bu taxaw ci wetu askan wi rek moko indi alors que solution yi bari na dafa laaj volonté politique dafa laaj nga faté sa bop faté nos faté nguuru xamné population yi la fi tek da ngay gàddu sen àq bo defé non population yi la fi tek dañu am ci yow yaakar dañu nek ci situation bu difficile waro gardu sen ak. da nga war a taxaw taxawaay boo xam ne bu ëllëgee ñun la gàcce ngaalaama ku ñu fal lan nga war a jëkk xalaat nan laay def ba bu ëllëgee population yëpp ne yéex nañ laa fal nan laay def ba bu ma tollee ci bilan jarul may campagne population yi ne kii dañ ko fiy tegaat képp koo xam ne loolu moo la tax a jóg boo demee population yi xam nañ ko bu la taxul jóg aussi population yi xam nañ ko. heureusement ba nga xamee ne ndar léegi ñëpp a yeewu. Hmm. daanaka tënk nga sa programme mais da ngay d'accord ak man ni euh, lii ngay wax ni euh, du si jamono ñii fi nekk. jamono ablay Wade aussi ndar dafa doon am inondation jamono ablay wad xif beeg mar bi daf fi da ngay nangu loolu aussi. jamono ablay wad lu raw inondation mo doon am ndax ge ndax boba taw bi euh, dafa amone dérèglement climatique mu am ay mbeund ay taw yo xamné wouté na ak tawu légui yi bañu né ndar dex gi dara ko nangu dex ak ndoxu taw yi xëttaloo ablay yeen solution la am. yan édition la fi indi. xanaa gës bël. defar dig dig bi ceinture Saint-Louis yëpp. ne kon ba waa Pikine kon bu dul woon loolu waa Pikine dañuy tox dig bi du Pikine kese wër na Saint-Louis Ndiolofène gannaaw raay. d'accord na d'accord na. dig bi corniche yee relevé waat dig bi ci booru lex gi ci ci berge bi. d'accord na. defar dig boo xam ne bu fi amul woon waa Ndar toxu nañu leneen Pikine gi ñu doon toog di fi waxe bu nawet daan jot gaal ngay jàllee. guy mbar gu gi xam nañu lool dexu ban ñepp ko xam hmm. mu am ay dex bir pikin ablaye ñew def fi ay milliards près de 20 milliards la fi def rien que pour seuk dekk bi jox fi ay kër ca ñim fi déplacer ñepp gisoko jambat ndax compensation yi leen defal mo leen gënal ku ci ne bañ la joxe da nga tabax sa étage hmm. mba sa terrasse hmm. parce que ablaye dafa am yermane bu la jëlé ci niveau A da lay yóbbu niveau Z leneen li ci amaat mooy mu def la restructuration de Pikine

waaw bu fekkee ne yow. kon laay dafa tabax ñuy yàq. yàq yàqeet. wala boog seetaan. dañu yàq. parce que ku seetaan yaa yàq. yaa wax de. ku seetaan yaa yàq. parce que liñ la dénk ka la jiitu woon defar ko ba mu baax Ousmane Masseck Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm ci jamonoom la Ablaye Wade defee woon loolu. Hmm. kon boo nee ñoo fi jiitu woon maire ah Ousmane Masseck Ndiaye nag gàcce ngalaama. mais nag li gën a ñuul. ci ci ci ci ci nguuram. Hmm. la Pikine am li mu am ci nguuram. la Ndar am tal yu dul jeex ci nguuram la Pikine euh, euh, comment on appelle la Ndar am amaat ñaari pont pont Faidherbe bi Abdoulaye defaraat ko pont ba ca bopp ndaru euh, Looda Abdoulaye defar ko fa. Hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen mu jël ay doomu ndar yu góor ak yu jigéen yu tolloon ci wut xëy mu ñafe di ñafe bu wutal leen xëy fu ne ci réew mi tey ay kaar yooyu dégg ak ñoo xam ne ña ndakaaru seen njaboot nekk ndar ñu leen di dimbale. di ñu am seen sutura gannaaw yàlla Ousmane Masseck Ndiaye la kon taxaw na bu baax ci affaire emploi des jeunes yàlla na ko yàlla yërëm ci yéex ca mi ngi ko mëne ci nguuru Ablaye Wade mais na nga d'accord aussi lan moo tax sénégalais naan góor gi dolluñu doon wax góor gi dolluñu ak yéex nañ cee jot tey ñu naan ay mouvement réccu xam nga kon Ablaye Wade la gars yi wër mouvement mouvement réccu sénégalais yi nag bañ ñu demee ba nga xamee ne xamatuñu fu ñu jëm dañu bëgg a dellu fa ñu jóge woon fa ñu jóge woon ci sénégal gox gu mu mën a doon tamba kedugu Matam Euh, Ziguinchor. Mm. Saint-Louis Dakar Thiès ñëpp dañu bëgg a delluwaat ànd ak équipe yi nga xam ne inspiration. Ablaye Wade la pour ñu soppi réew am na lu si ñuul li si brèche bi bël bi si gouvernement Ablaye Wade moom si boppam. bël bi bu amul xam nga bël bi ay langue de barbarie taxu nañu. Mm. maintenant président Ablaye Wade dafa am ay solution yu mu envisager. malheureusement avant muy pare ay solution am ñu wàccee ko nguur gi ñu fi indi nag bu ñu demoon laaj président Abdoulaye Wade lan la ci namm dañ leen jox solution mais comme que nangoogu ñu dem ci moom du ñu amagum solution solution buy am ci bël bii président Abdoulaye Wade moo koy indi. ah te waxoon naa ko. ah ñii du ñu mës a def ñaata entreprise lañ fa yóbbu dañuy xëy daw ñaata yoon lañ ne travaux yi tàmbali. ñoo ngi koy kii di. ana délai délai yi kañ la. ñoo ngi liggéey. 9 ans. ma ne 9 ans. yow kon léegi bu élection jaar ñuy def. xam nga duggoon nañu duggoon nañu Pikine ne dañuy def assainissement gas mbedd yi teg ay tuyaux. Hmm. avant élection présidentielle laaj nañ ñi ay 36000. Hmm. bi élection yi jàllee nu ñu def. Hmm. gàddu tuyaux yu yóbbu suulaat kàmb yi ña seen 36000 demoon ña ngay topp nit ñi ca xamuñu ña lañ joxoon seen xaalis fu ñu féete loolu kay. am na ci am na ci Pikine gii nga nekk. ba léegi France. France daal la xëddeen. ñu ngay jàkkaar lool ñaar ñu doy waar muy ki fi nekk maire bu Ndar. ak keneen ki nga xam ni moom lañ tuddee Mary Teuw Niane di candidat léegi wax nga pile ou fas danga bëgg wax ni ñoom ñaar ñoo bokk. benn lañ. lu tax wax ka. ñoo bokk ndey ñoo bokk baay moo tax. lu tax nga wax ka. ñoo bokk ba ñoo bokk ndey. am na lu tax wax ma lu tax bokk ndey. mooy ñoo bokk APR ñoom ñaar ñëpp ay militant wu APR lañu. Hmm. bokk baay mooy ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk Benno Bokk Yaakaar mooy seen coalition. ñoo bokk ndey mooy ñoom ñaar ñëpp Macky sàll mooy seen kilifa ci politique. ñoo bokk baay mooy ñoom ñaar ñëpp il bénéficie du décret de Macky Sall Macky Sall mo def décret def Marito Teuw PCA Petrosen Mary euh, Macky Sall mo def décret def Mansour Faye ministre ñom ñaar ñëpp carburant bi ñu utiliser Macky Sall la leen ko jox auto yi ñi dawal Macky Sall mo leen ko jox te ñom ñaar itam ku ci am ndam Macky Sall nga koy jox do ko jox Abdoulaye Wade do ko jox kenen kon kay ñoom lan moo leen wutale mais kii dafa nekk ci coalition nee parce que xam nañ ne Mansour Faye nit ñi bëggatuñ ko ñu bëgg ñi ko mere ñëpp ñu woteel marito Teuw Niane waaye ñu Mansour Faye di dóor bis bu ñu woteelee marito Teuw Niane dóor yu ko yu ko raw la ñuy ca ñoolu ñi yeewu dégguma wolof bi nga wax de man ne dóor yi Mansour Faye dóor waa Ndar biñ ko dénkee maire bi ak léegi waaw ci ñàkk toppatoo seeni itte waaw bis bu ñu faloon juumoon ci xam du am ba fal Mary Teuw Niane lu ko yées la ñuy am hmm? pile ou face la ñaar kon day gëna metti pile ou face yow da nga ni lolou day gëna metti kon kon dara day gëna metti day gëna metti kumba tamel tan kumba tanewul degen solution moy delu ci ablay Wade ak xalaatu ablay Wade ak yorinu ablay Wade gestion ablay Wade est ce que wandar tay ji paré nañu pour delu si ci ablay tay lañu gëna a waaw kay lolou mom je te donne la confirmation ñom ñëpp tak nañ sen dik ñima ci gis ak ñima ci gisul bu ko solution bi moy ablay Wade bu ko mo tuddu ko mais sen dolu wàññeeku na ndax ke dem na kooka na dangay ngay nangu ni Braya amoon na njëriñ aussi si PDS tey bu demee dina am ñu mu yóbbaale da ngay nangu rek. non Braya néew ma la bu demee du am ñu mu yóbbaale mais bi mu demee dafa am ñoo xam ne xëy dafa mel ne moom moo taxoon ñëwuñu woon ca ñamu àndaloon bu ñu doon 100 en tout cas ñaata ña ñi ciy PDS ñëpp ñëwaat nañu ci ñun. parce que hmm. Ablaye taxoon ñu topp ko man mii ma Mayoro Faye bi su ma bàyyoon PDS tey tey tey bu subaa ma wootee kenn du ma wuyu. Hmm. waaw waaw gars yi PDS lañ topp Ablaye lañ topp. topp ñu Mayoro Faye topp ñu Ahmed Fall Baraya topp ñu Sidi Ndiaye topp ñu Nogoy Fall ñun nag Abdoulaye Wade moo ñu fi teg moo ñu jàngal te it xam nañ ne kenn ëpp ñu ngor kenn gënuñu bëgg fi xam na sa wax yëpp dafa tënku si Abdoulaye Wade vision beeg non Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade fii ak mille ans dañ koy tudd moom la ngay tudd actuellement fii ak mille ans xam nga mille day fekk ñun ñëpp dee nañu bu yàgg Abdoulaye dañ koy tudd lool la ko yàlla may parce que li mu fi liggéey la li mu bind bàyyi fi li mu jàngale li mu wone ambition yi mu may sénégalais yi jël leen sénégalais bu ne mu jox la nga am ambition. jot na nga franchir nag. daal di sa liberté tuuti non non wax ni Mayoro man lii laa présenté waa Ndar mais vision Ablaye Wade boo ko bëggee présenté waa Ndar mais dina doy war de. est-ce que yaakaar nga ni waa daanu nangu. xam nga a fonk que nangu nga loolu. dëgg la sama diine ah sëriñ bi ma ciy déglu moroomu Ablaye Wade la ca la ma wax doy na parce que du génn téere bi. Hmm. waaw Ablaye moom it téere politique téere démocratie téere liberté téere développement téere dëkk émergé téere bi ma jàngal moom lay tari. Hmm. déedéet du ma dem ci beneen téere soxlawuma ko. téere bi Ablaye bind moo ma doy moo tax ma koy cité Ablaye Wade nee naa la fii ak 10 000 ans bu ñu ko dundee daañ koy cité en référence parce que référence la.

lan ngay y profil. ah ya fi wax waxu profil sax. waaw lan ngay tuddé profil profil à am niveau intellectuel. Wow. te yaakaar naa yàlla dimbali na ma am naa niveau intellectuel. Ah. profil mooy am expérience. yàlla dimbali na ma am naa expérience. Ah. profil mooy am expertise en matière de gestion des collectivités territoriales 19 ans liggéey naa ko ci. Hmm. loo xam ak loo xamul fukki 2002 ba léegi kon am naa ci xam-xam.

sànq wax nañu mhm. coopération mhm. décentralisée pour gàddu dëkk bi nga xam ni tey jii patrimoine mondial la si UNESCO waaye Ndar dafa nekk xar kanam dafa rëy si àddina ñëpp ko xam est-ce que am nga carnet d'adresse pour tey Ndar. carnet d'adresse bi Ndar a jëkk am carnet d'adresse am keneen kuy ñëw di candidat indi sa carnet d'adresse mais ñun candidat yi suñu carnet d'adresse bu ndaw la par rapport ak carnet d'adresse su Ndar. Hmm. Ndar dafa am taxawaay Ndar je ne ferai pas Saint-Louis Saint-Louis c'est fait elle-même. Hmm. Je ne ferai pas sans lui quelqu'un d'autre ne ferait pas sans lui dañu ñëw dolli brique mais sans lui, dafa am turam d'abord déjà dafa am d'ayom déjà dafa am renomméem déjà adduna bépp a koy tudd adduna bépp a ko xam. Hmm. Saint-Louis mooy tax nit xam moy tax ñu xam nit waye nit mënul tax tay ñu xam saint ñun hmm. ñëpp ñi doomu ndar yi. Saint-Louis ñu jaay mais ñun ñu jaay sans lui. dañu bëgg dañu mën kay qui aura bi am au plan international ak au plan euh, continental ñu ferait ba mu donne opportunité pour notre chère ville. Hmm. ñu ferait ba domaine yi nga xamné yépp war nañ ci mëna liggéey ak bitim réew bu dugg ci biir dëkk bi doon njariñ pour dëkk bi doon njariñ pour doomu dëkk bi ñu am intelligence ak expertise ak expérience ak niveau intellectuel bu ñu permettre. Hmm. Nous mën ko dem jëli fa mu indi ko ci biir Ndar. da ngeen di bàyyi dem kenn ñëpp la jël. non dama da parce que ñëpp la ku normalement la France doit la France. Hmm. doit être notre premier partenaire. parce que Saint-Louis son histoire est liée à celle de la France. mais jot na ngeen teggi buum bi. déedéet du xam nga euh, histoire il faut que nous assumions son histoire. mais les gens qui ont Macron ils promesse nous on n'a pas de partenariat avec. Macron non non Lille par exemple Lille. Lille de France. Hmm. Lille de partenaire où Saint-Louis. jumelé à Saint-Louis. jumelé à Saint-Louis Nous mais est-ce que nous non parce que nous, fi nous nous maté ñun bàyyil ba ñu yore yëf yi di nga dégg yeneen dëkk yeneen dëkk yeneen dëkk ñuy daw pour ñëw Saint-Louis parce que daañu defar Saint-Louis ba mu mel ne fanaan hmm. ca doomu ndar yi daañu ci gis seen bopp incha allah ca jàmm dana dellu si dëkk bi ñu ñuy fitnaal ci marché yeeg ci euh, koñ yi daañ ko bàyyi ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ca gisuñu ku leen taxaw itam maire bi dana def lu mu kenn talaay kàttan pour taxaw leen parce que loolu moo ko fi bàyyi. dama lay poser ñetti question au ñuy dem ndax temps bi jeex na. Euh, au pas moom mooy da nga may rapidement le bilan de Mansour Faye nga tënk ko. non je ne le ferai pas. doo ma ko defal dedet ah yow candidat nga non non non je ne fais pas le bilan de Mansour Faye. je j'attends qu'il fasse son bilan que je vais critiquer. ah d'accord euh, département bi am ngeen fa kenn. Mhm. kon yeen am ngeen 30 millions yi ngeen déposé. Mhm. kon département bi ñun ci Ndar ñi ngi commune u ñi ngi commune u ñi ngi commune u ah dëggal ñi ngi commune u ñi ngi commune u Gandon ak commune Saint-Louis à département le conseil départemental est dirigé le conseil départemental est dirigé par notre frère Ndiawar ancien député. il est notre un de nos grands responsables au niveau de de de Gandon où Badara est notre candidat Dame Thiam est notre candidat à Gandiol Cher Diop est notre candidat à Pal. Dame Thiam est candidat pour euh, pour. Euh, pour la commune de Gandiol. de voilà donc nous Ablaye Wade y bi une liste ñu déposer liste yi ngeen dégg ñu déposer suñu liste zéro faute maire dépôt ngeen war a xam ne ñun yamu ñoo gaay non non du sama sortis de la bonne école dé dé dé dé dé pourtant ñun ñi déposer liste yi def ngeen fukk ak fukk ak mosuñu man man mosuma élaborer liste vous avez fait 12 ans mané motax ma wax la yemuñu waaw l' expérience fait la différence nangu nga ko kon kon kon fo expérience boobu ñu mu gaay yi waaw fu ngeen jëlé xaalis parce que Qatar xaalisu lan fo gis xaalis non xaalis bi ngeen di campagne Qatar la jóge wala jóge damay laaj donc laaj donc damaa laaj donc <laughs> ñun amuñu xaalis yaa ngi reet xam nga lu ñu am nit ñi xaalis bi fu mu jot non ñun amuñu xaalis ñun am nañu nit ñi waaye nag yàlla suturaal nañu am nañu lu ñu dunde xëy na am gi ñu am lu ñu dunde moo tax ñu mën a muñ lu bari déposé ngeen fanweeri million waaw damay laaj fu ngeen jëlee xaalis mais loolu ku ku non non non loolu loolu amul loolu amul problème pour déposer loolu amul loolu amul problème d'accord yéene la rek benn nit sax boo xam ne politiqueul mën na déposer fenn trent millions chaque jour nga gis ku maye ah ci œuvre de bienfaisance lopp 30 millions. kon boo bëggee sa réew hmm. bëgg sa ay gox ak say gox-goxaan war nga mën a déployer lu toll noonu pour def ko pour que bu ëllëgee ci caution la loolu je après dañ la koy rembourser kon kay loolu loolu du problème bi xam nga problème bi mooy lan bu buñ la joxee dëkk bi nga liggéey ko loolu moo am solo hmm. et puis nga taxaw taxawaayu mate ko am audace ak fit bi ak sañ-sañ bi ca ku la xool du la weddi mu wóor la mën nga defar kon yow am na daf ñu jàngal nu ñuy defaree réew. ñu nekk ci wetam nekk euh, euh, dans l'ombre mu ñuy naan def leen bàyyi leen def leen bàyyi leen def leen bàyyi leen ñun. Mayoro kañ di jël seen. le régime le régime de Abdoulaye Wade. kañ ngeen di jël seen def ma rek ci jamonoy Abdoulaye Wade am na ay erreurs yu fi amoon nga defe ne erreurs yooyu ñun ak ñi ñi àndoon ak ñun doon ko def danañ ko defati. on a appris de nos erreurs d'hier on est humble on est modeste mais nous, nous ànd ak Ablaye Watt di doxal vision am Sénégal du développons beaucoup ca delluwuñ ci vision wu Ablaye D'accord. d' euh, accord defe naa auditeurs yi dégg nañu ils sont humbles ils sont modestes dernière question bi moom mooy am na lu soppeeku fan yi ñu wees at yee passé at bee wala après élection yi président de dindi poste premier ministre delloo si Ah. ban jàngat nga si am. waaw dafa yaakaaroon ne bu ko dindee réew mi dina avancé man de loolu laa jàpp dind ko woon pour yàq daf ko dindi woon pour lu baax mu ne léegi moom dafay retrousser les manches moom mooy def face ak gouvernement am dafay def fas track nangam ak nangam wax a wax ba yegal waaye gis nañ ne bi mu ko dindee tey coono askan wi dafa gën a métti ñi doon jàmbat a ak gën a jàmbat ci secteur yëpp muy santé éducation économie bi muy jigéen ñi sonn nañu ndaw ñi étudiants yi chaque jour ñi ngi grève dara réglé wul donc dem na ba nga yi ak revendication yi la dal parce que amul fusible moi je pense que cette décision est une décision politique hein, de euh, remettre le poste de premier ministre parce que dafa bëgg fusible au moins bo dal premier ministre mais de toute façon premier ministre de toute façon premier ministre bu ah. un premier ministre pour régler les problèmes des sénégalais Un premier ministre pour régler un problème politique de leur coalition le résultat sera le même le résultat sera un résultat négatif mais légui dafa melni da charge ah président de la république ay charge am décision politique premier ministre non mais lu taxone mu ko mu ko parce que numéro 2 mi ngi demoon ci élection 2019 bëggul ku ñu naan ki moy numéro 2 ku añani sa ndon nak sa deewin ñaaw. bëggul numéro 2 bëggul ku ñu naan moy numéro 2. parce que le premier ministre hein, s'il fait de la politique automatiquement il est le numéro 2 hein. Hmm. du système. donc mom dem na ba gis na léegi xeyna il faut mu am un premier ministre nañ ko sétane ba xam kan lay tek en tout cas bu tegee ko xamné les critères ne sont que politiques pour régler un problème politique de leur coalition Benno Bokk ça veut dire que ni euh, Sénégal génnaguñ ci sen guuta biñu ñu dugg amna at gannaaw at gannaaw at gannaaw euh, nañ la nga taxaw bu Ablaye taxaw gannaaw taxaw nga lire entre le père et le fils aujourd'hui mm-hmm. bala ma lay ci loolu dama lay tontu ci xam nga ngi Macron keroog ñëw na fii nga France Macron keroog ba ñëw ak Macky Sall man ak ñi ñun manifesté on était contre on a manifesté avec brassard rouge. à la place fédérale. Wow, Wow, devant toute la presse nationale et internationale. Vous avez manifesté Macron ak Macky Sall yëpp gis nañu ñu Mansour Faye gis nañu. dañu dañu ne dañu ñëw nax doomu gendar yi napp doomu langue de barbarie dañu ñëw nax leen ñun xamoon nañ ne dañ leen di nax. si ban fànn dañ leen du dañu ñëw dem visiter filmer ñu ne dañ leen di defal ay tabaxal ay kër dañ leen di indil nangam dañ leen di indil nangam. du ah, ñoo leen di tabaxal. am na lu ñu leen defal. ah kër yi ñuy tabax. boobaag léegi ñaata at la. waaw ah, ñoo ngi leen di defal loolu. diggante bi tojuñu fi ay kër tojuñu fi ay daara tojuñu fi ay jàkk. kooku fu ñu ko tojee. gendar foo nekkoon. yow waa gendar yi lay déglu danañ la mere de. damay laajte rek pas solidaire. damay laajte. donc li ci des Ablaye Wade ah, ak euh, ak président Macky Sall seen daje bi ñu daje woon wóor na ne que ni sëñ Mountakha moom moo leen jubale woon ci masaal kër ji naan jàkka yi. Masaalikal Jinaan non dama ni jàkka keur yi. antérieur à aux visites de de Macron. Macron 2018 la fi ñëw jàkk yi 2007. ma ne yaa ma laaj président Ablaye wad ak président Macky Sall seen daja boobu. Ah, seigne ah. muntaha mo len ne nañu joxante loxo ci masalikal Jinaan bi ñu koy inauguré. Mm. bi ñu jógee loolu président euh, Macky Sall invité président Ablaye wad nekk na ko ñëw seet mm. président Ablaye wad avant muy dem mu def communiqué. nëbbatuwul doxul guti ne daf koy dem seeti parce que moko demandé nako ko seeti. entre un président de la République en exercice ak un ancien président de la République. Mhm. ñoom ñaar ñu dem tëju waxante la ñu waxante ba ñu génnee def communiqué boo xam ne man maa ko lire un communiqué conjoint lañ fa waxoon itam loola yàpp naa ne bu ñu ko doon liiraat tey day nekk d'actualité daf ko waxoon ne nañ def lii nañ def lii nañ def lii lan moo tax aboutirul nag man xaw ma ko ndax nekkuma seen diggante xaw ma itam lan la ñu waxante woon exactement mais daal xam naa ne le président Abdoulaye Wade defoon ci communiqué ba. pour ñu doxale ko réew mi bu ñu ko doxalee woon réew mi heure bi passé nañu fi. amoo sentiment de déception. taxaw ñëpp. non non non non non j'ai joué ma partition def naa sama rôle bañ ca tollee la nga xam ne maa ko waroon def def naa ko donc aw ma benn non aw ma déception aw ma déception aw ma surprise àdduna mooy doxee noonu da ngay jéem mbir tële ko mbaa nga wut mbir du am. wala nga yaakaar nii lay demee du demee nii wala nga bëgg ñu doxale noo xam ne nii xëy na moo gën ca duñ ko doxale mais tant que mbir yi nekkul sa loxo sa responsabilité n'est pas euh, engagée directement. au soit du 23 janvier am nga si yaakaar. incha allah yàlla dinañu may ndam. parce que Saint-Louisiens yi ak Saint-Louisiennes yi. Mhm. dañuy fal ki ñu xam ne mën na liggéey ca bëgg na liggéey ca Ndar rek tax a jóg. ñëwul pour enrichir boppam. mbokk yi doomu Pikine la ñu dalaloon Mayoro Faye nangu nga doomu Pikine. Mm-hmm. Mayoro Faye la ñu dalaloon jiite coalition la grande coalition euh, wàllu Sénégal jaajëfal mbokk yi nga xam ni ñoom ngi toppoon euh, si ngoon ba léegi jox leen dig daje aser bi di ñëw incha allah. merci. gëm leen dina gën a baax ak góor gi dina neex li ñu naqari dañ la gisutoon bi la yàlla andee féexal nga réew mi xéwal la ñu nii naataange ngi nii ak gi njëriñu boo xamoon Sénégal ci mu jaar ba yegg si fii tey war nga gëm ne góor gi dañuy ci ngoy sa wax ju dëppoon ak say jëf lay dolli ñoo dëppoon nag fi jëm góor gi wàccoon ak ñun ku diix nañu ca mag la manul waxtu yàqu la mu ngi dem lu manul mag bi ma ta bàyyi ci réewoo góor gi yéex nañu